wa sabata sax na taw si xunaa sunu yaatal al iyaali ci njaboot ga wafat dikk nañu bay mbir mu ñuy fukk ak ñaar ba tey nee na tamxarit am na fukki yëf ak ñaar yoo xam ne des na ko ca def ba ci jëkk mooy woor bis ba muy bisu fukkeel ba moom lu ca ràññiku la jullik bisu tamxarit gën gaa néew ñaari rakka la ci gën nag mooy nga def ko ñeent rakka te rakk bu ne nga jàng ca gannaaw faatiha qul huwallahu ahad fukki yoon ak juróom ak jokku bokk taamu nañ bisu tamxarit nga jokk ci bokk ak sangu ca ngaay li moom nit ñi sangoo janaaba rek dañ koy defee ak saraxe loo saraxe ngir yàlla rek mu baax ak lay ay we ak tusngalu ak seeti ku tawat ak siyaare ci aji xam ji jëfe xam-xamam ak raay bopp jirim raay bopp jirim te yokk yërmande jirim mooy koo xam ne baayam dafa faatu te fekk na moom kàllafeegut nde koo xam ne yaayam rekk faatu waaye bàyyam a ngi dund du jirim koo xam ne itam xas na kàllafi ba noppi bàyyam faatu taxu ko doon jirim ba ca topp mooy jàng xul huwallaahu junni yoon bi leen fukkeel ak ñaareel nag mooy nga berndeel ci sa njaboot xéewal leen te yaatal xéewal ga bu baax ba mu ràññiku bu baax a baax nga xam ne yii soo ko boolee fukk ñaar lay doon yoo xam ne daañu koy def ci bisu tamxarit bi wal xuslu ca ngaay la fii ci moom xii la waxees na ne yan fii dana dàq saqaman ak ràgg wal iktixaal tusngalu fii ci moom yadd fa dana jiñ alxamaa ngumba taw si xunaa sunu yaatal fii ci moom alal iyaalit njaboot ga yasiduna dananu dolli ak risqa wërsëg bi idnil waali ci ndigalul yàlla mi kilifa baa ci nameeluk yàlla mi kilifa sangu ci bisu tamxarit day tax yàlla musal la ci xeeti jàngoro yi tusngalu ci bisu tamxarit day tax yàlla musal la ci ngumba yaatal ci sang njaboot berndeel leen ca day tax yàlla baril sa wërsëg yokk koo yokk tumma li xaashuraa topp ñeel na xaashuraa ashyaun ay yëf turaa yooyu def na leen gis maxsuusatan ñuy luñu jagleel bihaa ci moom rawaaxaa nettali na leen man ka nga xam ne dara xam na bisu fukkeel ci tamxarit am na mbir yu bare bare yoo xam ne yàlla dafa def ñu xewe ci bis boobu bu ko sooboon sax ñu xewee ci beneen bis waaye ci coobareem daal ñi muy bëgg a wax ñuy ci bisub tamxarit lañu xewoon ci coobare yàlla fa fii ci bis boobu taaba la jéggale woon rabbunaa sunu boroom xalaa abi basharihi ci bàyyub mbindeefam ya aadama te mooy aadama awwali nabiyin mi njëkk dib yonante aadama ak xawwa ba leen suñ boroom mayee àjjana luñ ci bëgg rekk waaxu sàkk ba mu des genn garab te saytaane nax leen ba ñu lekk ca garab googee ba tax yàlla wàcc leen ci suuf loole ñu def muy lekk ci garab ga teñ aay woon leen ko bis ba leen ko yàlla jéggal daa taseeg muy yow mu Ashura wastawatte yamoo assafinatu gaal ga almaalumatu gadiguñ xam fii ci moom xalal juudi yi ci kaw doj wa mustaqimatan mbir mu muy aji jub gaal gi da ci jublu gaaluk nooxun ga alayhi salaam nooxun sun borom a ko digaloon mu liggéey gaal ba gaal ga àggee sun borom wax ko ne ko leen lu ne na nga ca sàkk aw jiwu dugal ci biir gaal gi ak ñi nga xam ne ñoo la gëm ci sa waa kër ak képp ku gëm rek dugal ko ci biir mu daal def noona yàlla digal asamaan si mu sotti am ndoxam digal suuf si mu yàbbi am ndoxam fépp daal di lab nga xam ne genn gaal googe képp moo mucc ci bisub tam xarit la yàlla dogale gaal ga mën a taxaw nag léegi ca kaw doj wa wa fiihi te nekk na ci bis boobu falxu baxrihi xaru géejam ga li Muusa ñeel Muusa Muusa ba ko Firawna di dab ba ko añ tam séenee dañ ko ne ah daañu nu dab de ne déedéet suñ boroom laa àndal te duma wacc suñ boroom digal ko mu dóor yet wa ca géej ga mu topp ndigal la dóor yet wa ca géej ga géej ga def ay xàll def ay yoon limub ni fa mi ànd nag moom tollu rek noonu la limub yoon ya tollu ñoom ñëpp ñu daldi aw ca yoon yooyee ci biir géej ga daldi jàll mucc Firxawna ñëw nag bëgg aw fa Muusa awoon ak ay nitam yàlla bàyyi ba Firxawna ak ay gaayam yépp yépp dugg ba nga xam ne ñépp dugg nañ kenn jotagut a génn yàlla digalaat géej gi mu def na mu defoon di am ndox Firxawna daldi lab mook ay nitam fi mu tolloogoon moom mooy wax xar gi yàlla xaral géej gi Muusa dana wax léegi nag ci wewee ci topp na ca fexewoon a toppee ba lab waxaaka saaliki nii wulida jureef na fii ci moom xiisa xiisa ba tey ne yonente yàlla xiisa alayhi salaam ci yow mu xaashora bisu tam xarit la gane àdduna wa fiihi nekk na ci moom igraqun ak labal li firxawna ñeel firxawna firxawna ba Moussa jàllee aku nitam dafa ñëw daal di dugg moog aw nitam naka ñu dugg naka mu dugg moog aw nitam rek ba ñépp nekk ca biir yàlla digal géej ga mu def na mu defan ñoom ñépp ñu lab ba tey loolu kon ci yow mu xaashora la amee woon kazaniki ni xurooju yoonu sa génnuk yoonu sa minal xawati tukkee ci jën wa xudan na nga ko jàpp yunus yonante bu siiw la daa mere woon ay nitam ci ba mu leen wooyee ñu gàntu mu jekki-jekki génn dem bàyyi leen te amul ndigal ca génn ga ba mu duggee ci gaal nag ba ci biir géej ga mel ne gaal gi dafa nar a suux ñu ne ñàkkul day ab jaam bu ci nekk buy daw ab sangam te bu ñu tegoo ay bant daañu ko xàmmee naka ñu tegoo bant ya bant ba dal ca yunus ñoom nag ñéeg nañ ko jël sànni ci bitti daa mel ne def nañ ko ay yoon yoon xëy na ba ci yoonu ñetteel rek waaye su bant bi génnee dal ci yunus yunus nag moo jékki-jékki dal di génnal boppam ca gaal ga sànni boppam ca ndox ma ba yoonu sànnee boppam ca ndox ma nag yàlla yebal aw jën ne ko wannal yunus waaye nag bu mu rees ci sa biir ndax defaluma la ko muy ak lekk na nekk ci sa biir noonu rek nga xam ne kon yunus ma nga ca biir jën wa jën wi nekk ci biir ndox mi ba yoonu sàbbaale nag laa ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min alzalimin da sun boroom wax jën wa mu yàbbi ko bis boobee ku jën wa yàbbee nag mu génne ca biiru jën wa ba tey bisu tam xarit la woon tumma taaba topp jéggal xalihi ci moom rabbuna sunu boroom alxalimu koy aji lewet fii ci moom yunus bis boobu mu génne ca biiru jën wa ci la ko yàlla jéggale ba tey nga xam ne kon génn ga ca biiru jën wa ak baal ga ko yàlla baal génn ga mu génn te amu ci woon digal yépp rek ci benn bis bi la kazaniki ni xurooju yuusufa génn gu yuusufa alkarimi mi aji tedd min jubbihi tukkee ca kàmbam nga yuusuf baayam da koo bëggoon lool doom bi bàyyi nag loolu naqari leen ñu fexe ba baayam boole ko ñoom ñu dem ci àll ba bañ demee nag amal na sax ñu wax nañ ko rey waaye gannaaw waaye nag ñu mujj far def la tane mooy sànni ko ca kàmb ga te bañ koo rey bañ ko sànnee nag ca kàmb ga am ñu doon tukki jaar fa ne nañu wut ndox ci kàmb googule naka ñu sànni baag ba rek yuusufa dal cey jàpp ñu génne ko ci bitti naka ko dool bàyyi yëg daldi ñëw ne leen sunub jaama daroon daw nan leen ko jaay dal koy jaay nag tukkikat yi waaye mu ne nag ba tey bis ba yuusuf génnee ca kàmb googee ko dool bàyyi dugalan bisu tam xarit la woon wa fii te ci bis boobu ay don ba tey sallama la musale woon xalilahu xaritam ba min naarihi ci sawaraam wa fa salima te mucc xaritu yàlla bi moo di ibrahim ku ñu wax namrood moo digle woon ñu taal sawara woo xam ne dafa yànj ba njanaaw yi koy tiim sax dañuy daanu ndax tàngaay wa mu daal ci dugal ibrahim sun boroom nag wax sawara wa ne ko seddal sedd bu yem boo xam ne du gaañ ibrahim sawara wa sedd sedd bu yem nga xam ne ibrahim dara dara laalu ko ca mu ne loolu nag bis ba mu xew woon ba tey bisub tam xarit la woon wa fii nekk na ci bis boobu rafu dil xulaa yëkkati borom kawe ga idrisa te moo di idris idris ab yonante la yëkkati goo yàlla yëkkati nag am nañu ne da ko yëkkati yóbbu ci asamaan am ñu wax ne sax ba léegi ma ngay dund ak lu yëkkati ga mën a amee daal nee nañu mu ngi amee woon ci bisub tamxarit warafu ruuxihi ak yëkkati ruuxam nga ak taq yi kay aj ragal yàlla xiisaa te mooy xiisaa xiisaa dañ koy wax ruuxullaa ruuxu yàlla fekk na ruu yëpp ruu yàlla waaye nag moom ñàkk ga mu ñàkk baay nga xam ne yàlla digle ñu ëf ruuga ci yaayam rek moom itam yahuud yi dañ ko doon fexeel bëgg koo rey yàlla nag tëral ku mel ne xiisaa ñu rey kooka mu yëkkati nag xiisaa ci boppam yëkkati gam yëkkati xiisaa la wax ne nag ba tey ci bisu tam xarit la amee woon boo fii te ci bis boobu ay don ba tey taaba la jéggale woon rabbuna sunu boroom xalaa daawuda ci daawuda xaafiran mbir mu mi aji jéggal la ñeel ko maa la nga xam ne faala defoon na ko daawuda alayhi salaam la mu defoon bañ jàppe ko bàkkaar digganteem ak boroomam te ñu caa wuute am nañu ne taa jekki woon jekki rek xool asamaan te àndu caag yéene ndax ku toll ne moom du sañ a jekki-jekki rek songu def lu dagan te àndu caag yéene ju ko soppi ak jaamu yàlla ñu ne nag lu mel noonu la defoon bañ jàppee ko bàkkaar ci ku toll ne moom bam di ko jégloo ko tuub ak lu bakkaar bi mën di doon daal moom bis ba ko yàlla jéggal bisub tam xarit la woon wa fii te ci bis boobu yukk saa la dee fi wodde baytuhoo néegam ba alxaraamu ba di buñ ormaal alayhi moo yàlla doole nekk ci ñoom assalaat dolli teral wasalaam ak dolli woolu ba tey ne kaaba gi ca bu jëkk dañ ko daan wodd ci bisub tamxarit waaye léegi si nag jamono ji ñu toll nguur ga nekk màkka dañoo sàkk ñoo xam ne ñooy saytu koddaayal kaaba gi at mu ne ñu solal ko koddaay li dafa mel ne léegi daal bu weeru tabaski teroo balaa xaaj diggante boobu dana ci am bis buñ koy solal koddaay li daañu koy wax sax ci xibaar yi tuma siyaamu topp koor fanta bi na nga yeewu lam yan xasir takkuwut fi xadamil akli ci ñàkk a lekk faqat dong laa taxtarir bul waru ndax faru basa imin baraana aji woor ma al jamaaxati ànd ak mbooloo ma lay sa loxo de di ko ñeel fii ca koor ga siwal majaaxati ndare xiif ba ndegam daa toll ci wax woor ngir yàlla mu ne nag koorkat bul defe ne boo bàyyee lekk ak naan ak lay dog koor rek dal ngay woor dëgg-dëgg déedéet loolu day moom koor la sax nga xam ne ku ko def bu doon farata it koor ga wàcc na ko waaye koor moom bokkut ak rek di xiif ñàkk a lekk ñàkk a naan ñàkk a def lu dog koor kon nag lan mooy koor fa sawmu koor añ yasooma moo di bu wooree kullu xudwin bépp cër an kulli ma walis lépp loo xam ne yufdi dana àggale mbaa dana féetale fatan ascam li sëxwin jëm ci jamooj mbaa jëm ci njuumte am sikk jàppal mooy bàyyil xaanul nadari walis xool lil xaraam yi jëm ci aji araam wal mashi ak dox ga wa sam wa samhi ak dégg ga lu araam maxal kalaami ànd ak wax ga wa kulli fikratin ak bépp xalaat radiyatin bi aji bon dañ koy wax aji bon rek waaye mooy rek bu yamaay donte agul ci di xalaat bu araam kama am sakkata ni nga jàppe mooy ni nga bàyyee xaan ak lin walis lekk wa shurbin ak naan xolimaa yooyu xameef na leen ñoom ñaar dëgg-dëggi koor day mooy boo wooree da ngay sàmm say cër bañ cee def dara lu aay moytoo xool ci say bët lu aaya xool say tànk nga moytu cee dox lu aaya dox say nopp nga moytu cee dégg lu wërta dégg saw làmmiñ nga moytu cee wax loo ci wërta wax sàmm cër yi ci bitti ba sax sàmmaale sa xol ak sa xalaat ba sa xalaat du jëm ci lu amul njariñ ndax dañoo jëlale xalaat lu araam mbaa lu ñu sib waaye dañoo bëgg boo wooree sax di moytu xalaat loo xam ne xalaat bu ñàkk solo la bu amul bàkkaar it amalu la njariñ del xalaat rek ci lu am njariñ xalaat ci màggaayu sa boroom ak lépp lu tax nga mëneeg moom nga di ci xalaat ndax nga def ko ak luy tee nga mëneeg moom nga di ci xalaat ndax man koo moytu ni nga bàyyee lekk ak naan daal boo ni sàmmee say cër nga xam ne moyoo ci ci benn cër te yaa ngi doon jéem a téye sa xol ak sa xalaat mu bañ a rëcc jëm ci lu aay lii boo ko defee woor nga dëgg-dëggi woor wala tukassir bul baril as suxoora xadd wal futoora ak dog moom tali al batni mbir mu ngay aji fees biir fa tuxrama ba dee fi la xañ al ujoora yool ya ndax wa kullu man képp koo xam ne téere yu bari dañuy bind am la a waaye daa mel ni mënees naa doyloo mala a wa kullu man képp koo xam ne mala a feesal na battanahoo biiram ba taxaaman ci aw ñam wa ak sarate mu baril ashurba naan nga alihi ci moom wal manaama ak nelaw fa innahu naka moom istawa yamoona ma al bahimati ànd ak bahima id ngir faataxoo raw na ko xayrun aw yiw kathirun wi aji bari fatawaate mu alko nee na boo tolloo ci woor waxtu wa ngay xëdd mbaa waxtu wa ngay dog na nga def rek lu yem waaye bul dafa def ba sa biir fees dell ndax biir bi bu xësee fees ak lekk ak naan faaw rek tëdd nelaw moo cay topp te nag duy sa biir ba mu fees ci lekk ak naan tëdd nelaw boole ja loolu yëfi bahima la su fekkee ne baril na xëdd ga baril ndogu la ba mu ëpp ëpp mu daldi tëdd nelaw rekk noonu day mel ni kon rekk bahima ndax bahima noonooy mbiram su ko defee kon bu dee kooruk farata farata ja wàcc na ko waaye nag waaye nag lañ ko bëggaloon ci tuyaaba ju rëy rëy ak amee leer ak secret koor ga moom moo ca dul am wa baaduhum lenn ci ñoom yakulu dana lekk ak lal baqari kem lekkuk naye waxta futuuri yi ci waxtu dogam wa waxta saxari ak ci waxtu njël xataa yekkoona ba nekk batnuhu biiram ba taqilan di aji diis jiddan lool fa saarate mujj qalbuhu xolam ba mashxoolan di lu ñu soxlaal mbaa di lu ñu gàllankoor an zikri rabbihi wulis tudd boromam ba wayadda ay tem yu woote asiyaama koor waxuwa te fekk na moom laa yox wi du làq fatilan lu toll ni fatil fil xiyaami ca bis penc am na ñoo xam ne nee na buñ dee dog mbaa ñu xëdd dañuy lekk-lekk ba mel ne aw nag su ko defee seen biir daldi fees dell dis gann nelaw rek lañuy man seen xol du xalaat lu jëm ci tudd yàlla ak fàttaliku ko ku mel noonu nag nee na kooram turwa rek la nga xam ne farata wàcc na ko bu dee kooru farata waaye nag la taxal ñu woor moom ci dëgg-dëgg du ko ci am aha dana yal nanu musal allahu yàlla minal xuróori ci ak woru wa kullima ak lépp loo xam ne yadurru dana lor fi duhóori ci jamono ya dafa ñaan yàlla boole nu musal ci xeeti waru waru nag lu jafe-jafe mucc la mooy nekk ci mbir moo xam ne am na njariñ yaa nga cay séentu it njariñ waaye ndeke am na lu làqu ca biir yàq ko bala nga ci doon séentu ci njariñ du ci amati te yow nag yëgoo ko mu ñaan yàlla musal nu ci musal nu itam ci lépp luy lore faawu faawu faslu li ab dog la fil wérdi ci wérd daa waxoon ne wérd bokk na ci yi nga xam ne man nga koy def di ko fecclee sa jamonoy féex amma ida jahilta ndaal ndeem réere nga sha'nal wirdi mbirum wirdu faalam xamal bi annahu ci naka moom awimul qasdi aj rëy ak jublu la maanaam aj rëy maanaa la mawqi'uhu ab tàbbikaayam maanaam palaasam fi sharhi ci yoon min ajalli mawaaqihil qurabi bokk na ci gën jaa màggi tàbbikaay yi jaamu yàlla yi maanaam bokk na ci gën jaa màgg yi béréb bi jaamu yàlla yi xindal kulli fa képp ci ñi xam mu ne nag su fekkee da ngaa umpale mbirum wird la ma la ci njëkk wax daal mooy xamal ne lu rëy rëy la lu ama am maanaa la buñ doon seet jaamu yàlla gu ne ab wàccukaayam fu mu toll kon moom dana nekk ci wàccukaay bu yëkkatikoo yëkkatiku bu kawe kawe waxadduhu ab dëgg-dëggam nag xinda zawil ifaadati fa waroom jariñ ga chey un mbir la murattabun mu di buñ toftale minal ibaadati ci xeetu jaamu yàlla fi waqti yi ca waxtoom wa wérdu ci boppam nag am na yaari maanaa yoo xam ne surewuñu benn benn bi mooy nga fekk jaamu yàlla goo xam ne yàlla sopp na ko waaye waralu ko ci yow nga wut ca ab dog boo xam ne da nga koy def sa digganteeg sa borom rek saxoo ko sàkkal ko waxtu woo xam ne boo ci àggee rek def ko bañ koo jénnal bu rawee itam nga fay ko nga xam ne manees na ko wut ci julli wala ci koor wala ci jàng alquran mbaa ci yeneen xeeti zikkar yi ba ci jàng xasaayid yi sëriñ bi lu ci nekk rek manes na caa sàkk ab dog boo xam ne danga koy warlu taqoo ko waxtu sàngam nga koy def mu waxtu warawee itam rek nga fay ko mu bañ di jénnal mu des nag wërd bi nga xamee ne moom yooni tasawuf yi ñoo ko amee li ëpp ci yooni tasawuf yi dañu amee wërd wërd wa dañ koy sàkkal waxtu sàkkal ko sart yoo xam ne ku bokk ci yoon wa war a sàmmoonteeg wërd waag sart ya bu dee ci yoonu sëriñ bi wërdu almaquud mooy wërdu boppam waaye moom nag wërdu yépp suñ boroom da ko boole woon jox ko ko ndax ba mu nekkee ci géej ga daa waxan ne yàlla dafa yebal jibril alayhi salaam mu rekkee ci moom maanaam mu fàtteloo ko lépp loo xam ne moom sëriñ bi mas na ko jële ci mbindeef ci mboolem xeeti wérdi yépp yépp yépp gannaaw ba ko jibril fàtteloo ba mu fàtte ko nag suñ boroom dellu ko joxaat jibril mu jaare ko ci yonante bi yonante bi jaarale ko ci ña nga xam ne ñoo njëkk na moom wérdu yooyee ñoom nag ñu jox ko sëriñ bi jox gu yees dénk ko ko mu wutu leen ca di leen ko joxeel nañ ko daan joxe mu boole nag wird yépp ak wird boppam bi nga xam ne moom ba mu nekkee ca Sarsara ca Mauritanie la ko yonante bi dikkal ci njéeméer nelawul deful dara daal di ko koy jox xam ne kon wird yépp moom ay wirdama yépp itam la daa joxe ku ñëw ci moom sax fekk nga yoroon wird dalay wax ne la bu wacc ba nga yoroon téye ko te jàpp ne maa la ko jox ba wirdu bopp bi doole génn itam dane woon koo xam ne yoroon nga wenn te man koo booleeg wii kon fa huwa nuurun xala nuur kon booleel yaar yépp ndax leer la ci kaw leer ku yorutoon wenn nag mbaa yoroon na wenn waaye mënu koo booleeg wii kon na yem ci al maqud wirdu maqud nag dafa am ñetti yax yu wuute bu njëkk bi mooy al xafiif bu ñaareel bi moo di al kaamil al kaamil nag mel na ne moom la sëriñ Abdul Ahad mooloon di ko tasaare am na it al akmal moom itam léegi mool nañ ko di ko wecc ku muy yax yu bare bare nga xam ne kon xafiif ak kaamil ak akmal yépp rek maaxuus lañu boo ci xës miin rek du jar nga di ko bàyyi fab ba ca des su fekkee sa sëriñ moo la ci taamul benn nag nga taamu bala sa sëriñ taamul boo dee xool ci zahir nag day mel ne al akmal ba gën a mat moo féete kaw ndax bi ci digg bi kaamil la di firi aji mat ba ko jiitu nag mooy xafiif wérd wi nga xam ne yow yaa koy tobbil sa bopp rek muy aw sas nga sàkkal ko waxtu di ko jéem a def ca waxtu wa moo xam day jàng alquran mbaa zikkar mbaa jàng xasida mbaa lu ko nuru moom soo nekkee ak sab sëriñ mën nga ko caa laaj ndigal ndax mu jox la ca ndigal mbaa mu jox la geneen anam gu bokkut ak googa soo nekkutoo moom nag mën ngaa jekki-jekki rek def ko te yéene ca mu ànd ca ak yow wér du jaamur nag moom nee nañu deesul jekki-jekki jël ko te amoo ca ndigal